mbokk yi lépp loo xamante am na fi ci ambiance ci làmb ci décoration lépp da leen koy génn ci wasaare làmb du ñu bàyyi dara comme ni ma la ko waxee chaque jour làmb rek moo ñu ñor lu dul làmb lu dul sport ñoruñu di leen jox di daje ci kanam lépp lu am di ngeen ko jaajëf Tafatine Junior Thiatou Pouyeul Tafatine Junior Thiatou Pouyeul caatu sifle na Tafatine Junior moo ñu wan ginnaaw Thiatou Pouyeul lañ jàkkaar lool ñaari xale yaa ngi noonu Tapha Tine Junior Thiatou Puyol Tapha Tine Junior teg na tànku càmmoñ di dox di jëm ci moom waaye na def ndànk na def ndànk Thiatou Puyol lay dajal xale yaa ngi lewaatoo wala boog ñoo ngay damante baam Thiatou Puyol dafa mel ni fi mu jàpp dafa baax Tapha caat Thiat Peul xale yaa ngay bëree lépp calcul la oh, taxalikoo boobu ku bu daloon du ma neex Thiat Peul Tapha ñoo ngay xeex door na ko léegi Thiat Peul coup bi nga jël bu ñaaree du baax kal ko Caat Pell da ko bëgg a kal waaye mbokk kal ba daa sori fa nga koy yootoo Caat Pell bàyyi si wet bi ngay joxe koo xamul la mënee sooy bu rek moom da def ndànk da koo bëgg xar waaye dafa sori doole la ko bëgg a defal ndànk room na ko caxabal ba da koy daan Caat Pell daan na tafaatin Caat Pell a ngoog Caat Pell daan na tafaatin am na la mu tibb kàggu jëlal ba public ba xoolal mbokk yi xale ba la mu andi waa Grand Médine noonu waa Parcelles bàyyi leen sees yi ngeen di damm bàyyi ay waay dimbali leen ñu ngeen suturaal ñu la ñu am lii ñu am bu leen ñu ko yàqal mbokk yi xale yaa ngi noonu. waxal waxal soxal moo sedd mais sant yàlla waaw. laa wallaahi wa taala. yow góor yàlla nga waxal. diggante yi mu demee. mënu ma sama yaay bu ma ñaan la ba pare. ma ne tur xéwal. wallaahi wallaahi wa taalaay. sama yaay bu sonnee. wala ma jékki-jékki ma yeewu tim nii. joxuma ko dërëm. su ma génnee damay dof. ndam li fay na ko. non du ñoom kese waa Garaamir ñëpp. wallaahi wallaahi. Eh. kii sama lépp la. di nga ñaan nag ma seet Tidiane Niang. yal nañu yàlla may yàlla baax na yàlla baax na lu nekk sama kanam moom bëri na maa ngi sant yàlla ndax ndaw laa non non man du ma laaj kenn xoolal du ndaw laa rek bu nekk si yoon rek la affaire bi ñun la nang nang fara affaire bi mbokk yi Ndongo Lo Ngor. bilaa walaay talaay. ñu ngi lay seere gaal wér. waaw. nga xam bu baax mu doon sa rek. waaw nga ñu ko mu ñëw bëri si. parce que une durée stade moom fees. loolu waa Grand Médine di sant waa Grand Médine bu baax a baax. li war ne waa Grand Médine amuñ seen fay. yàlla maa fay yàlla yàlla seen fay. mais tey lay wax say waa Grand Médine yóbbante. waaw sama supporters yaa ngi nii. yooyu si mooy supporter amuñu ñii amuñu rek yàlla ñu yàlla xanaa ni tekk rek incha allah di ñaan yàlla yàlla may ñu waaw gis naa ko bu baax a baax gis ko xanaa déglu rek incha allah lu mu andi fa bu ma taxawee une minute ñëwul ma ñëw incha allah

waaye ñun dañoo ñëw ak lu làmb ñun bu euh, ñun fépp la ñu féete tafaatin ku ñu xam-xam ñu si tafaatin ñun nañ si nga bu tafaatin la mais maa ngi ci groupe yi yëpp muy ëttu làmb ji xew-xewu làmb nag ci laa ci premier groupe ma nekk fa jigéen kese ñu dooleel ma xew-xewu làmb mention spéciale sama xol dafa sedd xol bu sedd rek xol bu sedd kontaan naa nga waaje pare rek lépp sur tous les plans ñëw jël ndam di dem gis nga ko lan nga jàng ci moom. waaw dara adversaire la comme yeneen adversaire yi rek dañu ñaan yàlla yàlla may ndam si kawam rek parce que liggéey nañ loo xamante war nañ ko mën a daan. combat lu laaj xeex wala bëre. ah. combat lu xeex wala ñu xeex su bëree ñu bëre su bëree lu nag ñu bëree xeex. waaw ci kanam. sama doom sama xarit muy bokkaam am bés war a bëre si waa parcelle mbooloo bi yëpp gunge si ko ak parcelle bi yëpp. ak ay mbokkam catholique yi marolaay ñëpp ñu koy ñuy sàkku ci ñëpp ñaan ñu ñaanal ko yàlla may ko ndam. tey tey tey naka la ñëwee. waaw boo ko xoolee xam ne waajal nañ ko wallaahi asim lépp lu war loon ci moom ci entraînement lépp def na ko ba mat set li ci des yàlla moo ci des ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ko ndam. mais mbooloo dañ leen gëj a gis lan moo xew mbër yi dañoo pareegul wala adverse combat yi ñoo duggagul wala lan la. non combat yi moo ñëwagul mais Ibou Ndiaye ëppale am na combat am na combat. Euh, booy Boka ñu ngi nii ko gunge waaw. ñu ngi xaar nag promoteur yi gën a ñëw ndax Ondinga ak Zëm mi ak ay ñoom Moussa Dioum 2 même même même am na combat waaw ñooñu dañu war a bëre parce que bëre mooy suqali écurie. yow nag man moom maa ngi nii Malick Niamé defu fi lu ma fi deful. Moussa Dioum nag ñemewoo dëkk Malick Niamé fi mu toll nii. man bëriwul ak ku ma bëreelul daanu ku ma fi daanu tànn adversaire moo tax làmb ji metti léegi mais ñun dañoo war a bëre suñu biir. ñu ñu war a bëre bu ñu teggantee ñan ñooy bëre mu aju nees aju caat dégg naa ko moom it mu ne mu ngi may laaj man bàyyi ma fi kenn. caat ban caat booy bambara. caat am na combat. waaw mais man fee laa taxaw benn journaliste moo ma ne ma caat ma yox la sa yóbbante na la doon laaj ma ne ko bu paree pare na. pare nga pour bëre naa pour bëre ñëpp man làmb laa am aw ma leneen lu làmb xëyuma gontuma demuma fenn lu dul làmb defuma kon su ma bëree bu pertu ma. bañ a ka. ma ñaan yàlla may ma combat. Ibou Ndiaye. Ibou Ndiaye ziar naa la ziar naa la. ci loone sant Serigne Touba. tey na nga andi seen poulain de. waaw waaw waaw rek moo ko jar quoi moo tax ñu indi ko jantak booy ko quoi. ñëw xam nga tey tey tey naka ngeen ko waajalee. waaw dañ ko waajal rek préparé xam nga ga ko si zaay rek si baatin côté yëpp liñ xam ak liñ mën fi ñu fi ñuy dem yóbbu nañ ko fa pour jàppale ko. parce que xam rek mais doon dégg nga doon wër combat ba combat bi jot naa taxaw fan nga toll fi mu toll nii. waaw combat bi nga 25 juillet incha allahu rabi bu ñu tabaskee ba mu am 4 jours waaw di woo sama mbokk séeréer yëpp di woo waa Diofior di woo waa Parcelles 1 ba 26. di woo ñëpp xam nga di wax Pape Yékini nag dégg naa ay waxam nee na daf may dóor ma daanu bu jour ba dina xam ne lépp dëgg ba. am na ku ma dégg fi may dee naa ma jam téeri nu mu demee noonu. waa jam téeri xam ga booyam ak sama booy ñooy bëre te incha allah rabi bu ñu jugee si Pape Yékini gi ci kanam raw bi bët. waaw li ngay wax. yaa nga baax na. mu ngi ah. waaw maa ngi dem jox ko sa yóbbante dama jox sama yóbbante. dafa leer jaar naa la. mais dama laa gëj a maa ngi fi de maa ngi fi nekk sama ruq rek di entraîner xam nga. amaguloo combat. amaguma combat ba léegi gars yi di war a ñëw ñu bëre. ñoo ñoo daw avance. daw avance bi gars yi daal bu ñu déggee yow yaa ngi moo tax léegi dama wàññi mbabat instant yii ren saison bi ba mu ubbee yëpp benn mbabat laa bëre. gars yi naan anu Ondinga anu Ondinga mais Ondinga mu ngi ci ruqam rek di liggéey nekk say ginnaaw grand xam di job di xaar combat quoi. mais ña ñoo nekk ci sa kanam. mais avance bi gars yi moo loolu man du ma bëgg di tudd tur mais problème dañuy woote sax gars ñu nekk di tendeefal affaire yooyu noonu affaire yi amatul weex nañ bàyyi paa yi ñuy dëkk ñuy bëre. nañ ñëw booy yi nañ ñëw bëre. yéen booy li ma ñaay booy ma xam. gars yi moo loolu gars yi dañuy xool benn lu nooy nepp xam nga ñëw ko ñëw fulox saa gars yi ay ñoom ay ñoom caat caatu booy ba ay ñoom kii ay ñoom euh, Alioune Sèye ay ñoom armée du ñëw ñu bëre maa leen dàq bëre maa leen maa leen gën a am ay supporter barki alxuraan ku ma jël ma jàngal la bëre léegi nag bàyyi naa xeex damay bëre rek. da ngay bëre ah, xeex moo tax ñuy daw bàyyi naa xeex damay bëre nañ ñëw ñu bëre loolu. waaw baax na kontaan naa. waaw tous nag. aja bëggee. gis ngeen mbokk yi lii de ay fruits la. boo paree nga ñëw wax ak man ziar naa la. waaw ñu daal di ziar. mais ci loo ne. naa ngi si si jàmm. naka waacaay li. ah ndam rek. daanaka yàlla may ndam rek. tey naka nga waajee. ah tey ànd ak samay rek. waaw jóge ba tubaab Jalaaw. sa na ma boo xeexee mu duma la. soo bëree mu daan la boo ci deful ñoom ñaar mu def la ñaar yëpp daan la. loolu loolu yaakatul la. mais dafa mel da nga xaw a de. non man xaw ma sedd sax ah. xaw ma sedd sax dañ ma yeb rek waaw yàlla baax na. xalaatam ak xelam la wax kii ñu ko yab dañuy caaxaan yàlla baax na. Ibou Afia Aliou Fat Cey Sam Sam tëgg na combat yu neex. Ibou Afia Aliou Fat Fat Coly Faye général bu faas loolu lamb daax ko nga andil ma ak deux giga tey lamb boole na ay xale yu tolloo waaye Ibou Afia Aliou Fat Fat Aliou Fat Fat moo ñu wan ginnaaw ah waaw waaw seen combat bi dafa yàgg joxe avertissement bañu ma loolu waaw waaw bu réew leen Habib suluwaat na Ibou Afia Aliou Fat Fat Ibou Afia Aliou Fat bu Afia même na léegi Aliou Fat Fat a ngi ne taxaw ne tekk taxaw di ko déglu di bu Afia Aliou Fat Fat ñoo ngay damantey baaraam Ibu bëgg naa ci xale cokaas na léegi moom Ibou Afia Ibou Afia Aliou Fat Fat ñoom ñaar Ibou Afia Aliou Fat Fat fàq na ko na ci wet ga Ibou Afia daane daanu war na ko ndomb Aliou Fat Fat Aliou Fat Fat war na ko ndomb Ibou Afia Ibou Afia Aliou Fat Fat dana ci génn du ci atul moo ngi bay lu mu koy def Ibou Afia Aliou Fat Fat Aliou Fat Fat nga koy doo daan na ko Aliou Fat Fat daan na Ibou Afia Aliou Fat Fat daan na Ibou Afia xoolal ma mbooloo moom andi ndànk Ibou Afia Aliou Fat Fat daan na Ibou Afia ñoom ziar naa. maa ngi lay delloo loo ne. sant borom Tuubaa. ma gis boobu ak léegi bi nga ñëwee toogaloo yaa ngi daw rek lu noo non sama yaram a rek mooy loolu. mais bés bu ñëw. bés bu ñëw nag samedi bi ñëw bi sopp la. yegsi na. yegsi na. na une semaine wala deux semaines. non yi deux semaines rek moo des. mooy loolu waaw. mais naka nga waajee. non ànd naa sama mbokk ànd waa Mbedd Fass surtout 100 pour 100 Mbedd Fass chauffeur ak maa taxaw woon na Serigne Saliou ak am am am am teranga maa ngi sant bu baax am taalibi sëñ Abdou Karim maire Aïda Ndiaye maire Aïda Ndiaye maire bu baax si man la di ma defal teranga suba nga guddee ak maire faama maire Fama moom suñu yaay la bu baax mooy loolu xam nga di sant sama gars yi maa la ñoom Ablaye affaire yooyu noonu xam nga mooy loolu daal. lan ngay wax 2 Giga. na taxaw bis ba rek ñu bëre daan rek. 2 Giga moom day taxaw loolu kenn wax. kon laa mujj de gaaw wala day gaaw barke yàlla bu taxawee bu taxawee lamb day gaaw. xeex ak moom wala da ngay bëri. ah bëri dóor de bëri dóor lañ wax. bëri neex naa doo njool la de. ah man gisoo man la la am njool nga. wala njool bu ndaw. ak du nuyu mafia rëm sele bi mbambe mbay jaam moo ko dirigé rëm mafia sele bi waa caw sa xiir maa leen nuyu fay lamb ji seen lamb la du nuyu El Hadj ah, maa ngay nuyu di sant yëmbool beeg bun beeg mbéy faam yëpp naan leen ñu jàppale seen doom la Touba suñu borom defaral ñu ndam mooy loolu waaw di woo gaa yëpp si lamb yu ñoo jàpp si ku mes ku mel ni grand Ibou Diagne ah, ak grand jaw lii damaa bëgg nga génn ma ko grand Ibou Diagne grand Diaw ñoo la ñuy sonn si ak sama jigéen day tuudi day tuudi sama jigéen baax la borom ñaari seex yaay Amina xam nga ay ñoom Tafa Touré waa kër Seex Seex Touré ah ñoom ñëpp maçon spécial. de nuyu naa la deux giga. maa ngi lay fay woos. ci maa ngi nii rek. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si bu baax a baax. ah calme nu demee noonu. waaw danoo war a calme noonu ñëw bis boo xam ne daf ñu ñor. bis boo xam ne bis boo xam ne yàlla baax na daal yàlla nañ ci yegg ak jàmm daal di ñaanal yàlla ñu yàlla may ndam bu kawee suñu jot. mais dama la gis nga taxaw fee sànni ay góor surat. waaw moom dama ko bëgg a ma ni man damay jëflante ay ndaw lañ nañ bëree làmb ju neex ñu def lu neex ji fi waaw. dama ko laaj da ngay xeex ak la ñu noo bëri dóor la sax par force loolu day am moom mu bañ ko wala mu nangu ko lenn rek moo tax du am mu daw. nee na combat bi day gaaw. non na gaaw si man incha allah yàlla baax na. naka lay gaawee ci yow. mooy ma mu mu mu teel a jébalu rek. yow lan lay jébal ci yow tamit ba liggéey de. non danoo war a jëflante ay ndaw lañ man ak moom am fu ñu toll si làmb làmb war ñu dégg foog ñu war a war a bëri combat bu neex lool tax ma def tekk di bàyyi ba làmb ja incha allah. waaw kontaan naa ci. maa la gën a bég góor waaw laaj leen ko. Eh, laaj leen ko ba léegi dama koy baxalal. laaj leen ko laaj leen ko. non ba léegi dama koy baxalal moom. man dama ko bàyyi moom. ku ma duma tey. delloo ma yar bi barke Seydina Mohamed. waxuma laay waxantu de daf maa def mbër. daf maa def mbër. dama pare combat ay at ay ay weer. ñëw ba lamb ja asente ba. pare parewu ma mu daan ma par erreur moo ma def mbër. ba léegi ba nga ba nga gisaatee ba nga ñëwaatee loo gis jantéer ba pare te gën a pare man damaa bokk ci gars yi lamb damaa yaakaar gisoo ñoom Sa Thiès ay ñoom Garga Mbossé ay ñoom ay ñoom lamb ñooy Cissé man wax waxantuma de damaa damaa mën fee damaa mën géew bi waxantuma de man say wax bëriwul boo ko bëriwul li ma ne say di wax waaye damaa man géew bi barki lu leer laa lay wax damaa mën damaa mën géew mbokk yi abit baa ngi noonu ci diggante Boka ak Tony Junior Tony Junior moo wan ginnaaw wala boog moo féete à droite Boka moo féete à gauche moom la ñu jàkkaar lool Boka moo ngi dox ci kawam Tony Junior moo ngi reculé combat bu neex a ngi nii mbokk yi Tony Junior daw na jël ko atul wala boog Boka daw na jël Tony Junior plaqué na ko mu mbot ko Tony plaqué na ko léegi Boka déclenché ko mbot atul Tony Junior daan na ko Tony Junior daan na Boka waawaw waaw Tony daan na ko da koo takk bu Boka déclenché mbot waaw xale yaa ngi noonu Diam Terry ngi noonu Tony Junior ñoo ngi saafante ñoom ñaar guddi ak bëccëg dan ma ni ñu ma ni kóoni ak lu miti miti ku mën a jël téyel sa bopp nga jàpp ko biro ak moom mais noonu la mais lamb la yi ñoom loolu lañ ma conseillé mais ku xam tuuti xam ni combat am da daa bëgg a rek ñëw xeex mais gis nga jël naa ko mais teewul dama jàppante ñëw bëri moom tam waaw xanaa si kanam rek nan ma jox samay morom rek ñu bëri waaw wallaay na sim li ma la waxoon moo fi nekk nan ma jox samay morom sept combats sept victoires du ay caaxaan Ada Fass ak ku daan bëgg naa ñoom ñaar xool li ma mobilisé xoolal li trois blocs lan ma jox barke ko karim dafa jeex tàkk billaay wala waaw waa kër bi xanaa ñu xaar ma rek incha allah dama nama sama yaay quoi dama nama sama yaay bu waa Jandeer maa ngi santaat ñëpp li ci dara Jandeer am waa Ndam waa Jëndeem foofu waa Kimaay waa Talbiya waa Kër Mbir waa Kayar Yacine dina préparé jabar Seexu maa ngi koy siyaare bu baax a baax Yacine Kayar maa ngi koy sant bu baax waa Touba waa war caxal ñoom ñëpp jàpp na si combat bi mën na ko ñoo sant mais yow Fane faa ngeen ñëw kër bi ñëw ñu mën a war incha allah waa lii lan la bisum laa ma ñëwagul aywa barke Serigne Bamba waxuma waga jëlu duma tapper nga waga tapper la maa la gën a métti maa la gën a métti ñun ay ndeyu baari lañ ñun ay ndeyu doo baari lañ ñu déréti mère France bu am moo daw suñu yaram déréti ay na du yaag moom. kii munul munul daa tële munul dara. dafa tële ba bu arbitre sifflé dina xam daa tële bu tawul ma door ko mu daanu. dégg nga nee mu door. kii comédien la day théâtre théâtre kat la. kii du ma xool li xool wa wax barki Serigne Sali fu mu taxaw dinaa ko duma naa ko daal yéen ñaar bu ngeen ngemboo ñëw ma daal leen ci suuf ma nangu daal nangu naa waaye xamal ne kii sóoraale wu ma ko li jëntuwu ma Dia moo ñu wan ginnaaw mooy Ndaamali Modou Yacine moom lañu ñu jaakaar lool Modou Yacine wàcc na ba tolloog moom Modou Yacine wàcc na ba tolloog Kouthia maa ngay seen kolifay kolifay a ngi noonu dugg si jël mbaxana tengaare ba teg ko bopp ba moo war a nga xamante ni nii mooy général bu Fass Caaroy la ak Faas Modou Yacine Unca arbitre bi sifle waat na kenn xamu ko waaye kuñ ci jàpp seen njoñ dinañ la dóor ba nga xool fooy tëddal sa bopp ankay laay bul ko waxati rasa yi dañ ciy jàpp dóor ba ngay bëgg a dee Modou Yacine Unca Unca Unca fa muy doo sori na Modou Yacine Unca Modou Yacine Unca Modou Yacine léegi waaye wala boog Unca door na waaye Modou Yacine wàcc na ba tolloog Unca Unca Unca Unca borom bagaas la Unca Modou Yacine Unca Modou Yacine ñoo ngay seerewaat lapataake ya Unca Modou Yacine Coly Faye ngi noonu ma ne ko Coly Faye ngi noonu maa ngi moo nga yo geenu nag Modou Yacine Outhia Modou Yacine Outhia lewaatoo bi yàgg na cokkaas na ko léegi wala boog dal na ko Outhia dugoon na léegi ku Outhia Modou Yacine Modou Yacine dugal na léegi Ounthia Faye doon Faye la tudd doonante nañu ay Ounthia Ounthia mi danga de Ounthia mi Ounthia Modou Yacine jàppante nañu loxo mbaa ëppee kil du fa am mbaa kil du fa Mor Yacine Unca ñoo ngi xeex taxalikoo nañu ñoom ñaar dóoral ma dóor la Modou Yacine Unca Mor Yacine hey Unca Modou Yacine dugal na ko léegi pour dal bu jaar moytul mooy peu kiliya bu tàmmalee jàmm du fa am Mor Yacine Unca Modou Yacine baa ngi bëgg a yàgg Kouthia dem na léegi waaye Modou Yacine Modou Yacine Kouthia Kouthia xoolal fa ngay bëree Kouthia Modou Yacine Modou Yacine Ounthia di damante baam jël na ko jël na ko plaqué daan na ko wala daan na ko ko Uncaa daan na ko Uncaa daan na Modou Yacine naxante na moom ba jël ba Uncaa naxante na moom ba jël ba plaqué ko Uncaa daan na Modou waaw maa Malika maa leen wax ne lan kontaan naa si ñaani gis naa maa ngi bëgg naa ñu jox ma ci booy tapet yi Ada Fass tapet la Ada moo ko indi nan ma ko jox ma du ko daan ko ah ko daax bëri téeméer junni ma am bëgg kontaan naa seen it Baba Sadio Deme ñun Baba Sadio fi bàyyi. taxawal bi kañ la combat bi. le 3 juillet fan la ñoom ñaar ñooy bëre. Euh, spécial. non avant euh, ni production la. mbokk yi amateur yi leen leen bu baax yi production moom moo ñëw incha allah bisu le 3 juillet ci combat yu mag yi nga xamante ne ni moom la wootee mu war a am ci diggante ndaanaan yi nga xamante ni kenn dootu leen présenté ci wàllu làmm ay xale lañu yoo xamante ne nii xale yu am fulla ci li ñuy def buñ leen ne Ama bu Malika moom moo war a daje ak loobu yoof di ñaari xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci sama wet ñu taxaw ñuy xale yu am ginnaaw xale yoo xamante ne nii ku ci nekk boo jógee sa quartier ñëpp dañuy jóg muy combat boo xamante ne le 3 juillet lay am incha allah ci stade Iba Mar Diop ñu ciy jox rendez-vous képp kuy amateur combat bi nag mooy benn la ci spécial spécial yi am na combat spécial mu war am dox ci diggante Thiandoum 2 ak Boy Niang numéro muy combat boo xamante ne nii combat boo am solo ana Thiandoum ak mooy Boy Niang bu Yoff Ama bu Malick koy yëkkati solo mooy Ama aca jërë ngeen moom mooy Ndongo Lo ak Cheikh Tidiane Niang muy combat boo xamante ni nii ñoom ñaar seen xarañte ak seen mën a bëree yaakaar naa ne duñ leen ko wax yéen amateurs yi muy combat bu mag war a am incha allah ci stadium Iba Mar Diop Mbaye Yékini production ñëwaat ci xale yii nga xamante ne ay ndaanaan lañu Ndongo Lo moom ak Cheikh Tidiane Niang moom adversaire am ñëwul moo waral mu taxaw nii. Thiandoum 2 moom taxaw nii moom it adversaire am ñëwul ne ñu ngi jox rendez-vous amateur yi le 3 juillet ci stade Iba Mar Diop. nangu loo i say loxo amateur yi gis la. waaw Thiandoum 2 jaajëf jaajëf boobu. combat yi ak a bëree. Xuma Coly Faye xuma dë ak Modou Yawa xuma dë yëkkati sa kookoy xuma dë ngeen xàmme ko Modou Yawa kontaan nañ ci yéen aja dellu leen bàcc ak Garga bébé garga nekk ana bàyyi te ñëwul. xanaa laajal saam ba mbokk saam la kay. Ah. waaw garaawul kii mooy bàyyi si te. mooy bébé garga. Ah, kii kontaan nañ ci yow. jaajëf Boy Faye ak bébé garga. ña ah, Coly Faye numéro 2 ak général bu Fass ñooy bëre. kooku de combat la woon. sëy yi baaxul. kon yow yaay kan. Bébé Garga Bébé Garga nekk nii Boy Faye moo nekk nii. ajo kontaan nañ ak Boy Lo. Boy Susu maa ngi nii ak Boy Lo. waaw boo koy Boy sekk sekk euh, naa ak Mbaye Xaada. Mbaye Xaada ak Seck Ndaanaan daa leen nii Mbaye Xaada nekk nii Seck Ndaanaan Seck Ndaanaan. ñoo ngay doorante ñoo ngay doorante te laa jëm ñoo ngay doorante ñoo ngay doorante moo ngi koy door moo ngi koy door ñoom ngay doon lamb ji tay a la booy wàllu Bou Siteu. booy wàllu Bou Siteu. Bou Siteu jëlee de dinaa la daan. Bébé Fass yëkkati sa loxo. Karbala. jërë ngeen jëf. mbokk ñu dem ci combat spécial yi. deuxième combat xarañ moom moo koy bëree ak Boy Lo. Boy Lo kaay Lo moo nekk nii à droite Tapha moo nekk nii à gauche muy combat boo xamante mag la mbokki amateur yi Tapha Xaragne yëkkati sa loxo ñu la Boy aja jaa ngeen jëf deux Giga ak Reum écurie Thiatou Fankam ak écurie Yeumbeul mbooloo deux giga ak rëm deux giga yëkkati sa loxo waa deux giga ngi noonu rëm yëkkati sa loxo waa rëm a ngi noonu jaajëf waaw Fall ziar delloo ziar ci loone sant Serigne Touba wér mais tey ñu ñëw nga gis ne ngay def face to face mais ki nga xamante ne mooy général ñëwul naka bu ah loolu moom la concerné ah mais moom respecté naa sama contrat li ma li war sama diggante promoteur def naa ko waaw combat bi kañ la le 3 waaw man dama jàpp ne suba la. mënuñ ko. dama jàpp ne sa combat bi suba la. dama jàpp ne combat bi suba la. dama jàpp ne combat bi suba la. tool yi pare nga. dégg nga xanaa ko jàpp ne combat bi suba la kay kooku ay pare na. état de forme bi fi mu toll. waaw loolu jour si dañ ci xam dara incha allah. Ah. loolu jour si dañ ci xam dara ñu ngi liggéey rek waaw. lan ngay wax général. Zera amul lu mel lu may moom parce que li ma war a promoteur def ko man nag may wax mooy li ma moom laa jël ci moom li ma moom ci moom laa ñëw pour jël. mais est-ce que jël ci bi dina yomb ndax ñu gis Général Ndiol la te dafa bëgg bari li xeex sa diggante ak moom est-ce que jël si li nga li nga bëgg a jël est-ce que dina yomb. dégg nga ñoo bëree ñu ne ay Ndiol la leen a battre li ma moom dama ko jël Général man lim lim moom lim lim ak li liggéey concerné ma loolu moom la liggéey man li ma liggéey moom concerné man dama ñëw pour jël si man li ma moom si moom te dama koy jël incha allah si kàttanu yàlla. baax na kon ba bés ba. a ah, ba bés ba jaajëf. plaisir ziar naa. waaw maa ngi ziar bu baax a baax. mais ci loonee. waaw sant yàlla rek alhamdulilah. félicitations. waaw merci beaucoup sant yàlla rek. yow ñu gis nga bëri combat bu métti te yàgg. waaw combat bi moom combat boo xamante ni xam nga rek mooy ma wax rek ñëw teg suñu bakkan xam suñu bakkan ngeen ci tegoon quoi parce ñun Malika ngeen dañoo jël loo xamante ne maanaam dañ ko si yoon moo tax tey jii xamoon ñun heure buñu simee koo ah, moo tax noonu kese nga demee quoi dañoo ñëw teg si bi xam nga joxe wu ñu am yëpp nga am fay ñu kam ko génn nga ci combat lan moo nekk sa kan waaw instant bii moom maa ngi ah, booy itam mënu ma ngeen jeexal quoi yaa ngi na ma garaay may chance xam nga ma duma ngeen daan ngeen mooy loolu noonu mën a génn samay morom parce que booy man mën ma leen jeexal vraiment waaw Bulldozer Sène def na dix combats neuf victoire benn défaite xam nga bu Aliou Mané ñëwee nga jël ko waaw Aliou Mané bu ñëwee ma jël ko Mané Seck bu ñëwee ma jël ko mais nañ ma may chance ma bëre yow daal da ngaa jël sa seize teg ko bi ikri Falaye Baldé ne du fa jógee waaw mais na ñëw ñu bëre ñoom dañoo war a ñëw ñu bëre ñoom dañ maa war a may chance samay gànnaaw lañ mais dañoo mais instant bi damaa toog si ñu may ma chance ma bëre génn wala buñ ko daaxoon na muuri anda ñëw muuri Modou Anta Mène waaw waaye Tyson 2 mi ñu daan démb ñeme barki arxugaar yi kenn man xaaral dama waroon na sama bopp faa jox ma koo xamante ne naan kii day gaay bulldozer yaa ngi dégg pour ma mën a wane bopp yaa ngi dégg bi nga ma ma benn fekk gis nga mën a gooy fii ma suma day met bu dee mën a gooy rek fii ma suma day met si ñoom mais nañ ma jox si gars yi ma wane sama bopp baax na kontaan naa jaajëf jaajëf fii promoteur deful dara organiser nañu lamb am na comité d'organisation boo xam dañ ko teg en place bu fekkee ña fa nekk mënuñu seen liggéey wala sont des incompétents dañu démissionné li ñu war a def moom mooy comité d'organisation boo xam ni ay personnes yu dynamique ñu nga ci ñu am courage ñu ngi fa ñu am fit ñu nga fa ñu dugg fii yéeg di surveiller booy yi mais comité d'organisation boo xam ni ku nekk a ngi sol sa xaftaan bu rafet ñëw taxaw ne damay organiser loolu du comité d'organisation arrêtons de se leurrer CNG bi yaa ngi dégg lii mu fi teg ah du ay jalon yu baax du ay jalon yu rafet waaw. sama yoon newul ci bi fi ne newoon jeex na. ci li fi nekk laay wax. comité d'organisation bii ma gis. teew tey gis li xew ci taw yaa ngi déggoo baax konteel comité d'organisation bi ñu fi nekk. bariwut tolluñu nenn nu ñu mën a gérer lii c'est pas possible qu'on ne mette un comité d'organisation digne de son nom capable qui a les capacités de gérer cette foule là à défaut de ça nañ ñu delloo suñu làmb ñu seet bu ko attan ñu jox leen ko. mais tant que président ci waxtaan ak ñoom. mani man awma lu may wax li ma waxoon wax naa ko temps yële ñu daal di koy yóbbu foo xam ne waru fa dem dégg nga wax baax làmb ji ñun ñoo ko mën a defar làmb ji suñu làmb la mais lii ma gis bu fekkee comité d'organisation bii ngeen yaakaar ger a làmb moo leen di organiser lii ah c'est boo ñu lem suñuy bagage promoteur yëpp nañu lem seen ay bagage dem toog seen kër lu leer laa leen wax dama lii dafa nuyoo rek dama lay wax ci sëy la làmb sëy la dafa bëri ay pàcc mais lii salaamaaleykum la gis nga bis bu bis bu ñu demee ba toog ba lii samp fi kër leneen ngeen gis feebar bi feebar bi dama ni comité d'organisation bi nga xam ni mu ngi ca biir CNG yor gestion wu combat yi nañ ci def ay gens yu dynamique des gens compétents des gens responsables qui assument c'est ça li am lii ñun ñëpp dañ koy métti dama yaakaar nag problème bu amee dañ ko war a jàmbar ñëpp ñu toog waxtaan si mais xët-xët rëjëndiwul dara CNG ku mu neex ak ku mu naqar yi moom la fi ministre bi teg teguñu ko suñu bopp ay nit la ñoo xam ne di làmb lañ mais promo euh, euh, amateur fee ca kaw CNG du fa def di moom police mi ngi nii est là pour ça moo koy dem xool ko réglé ko organisation lañu yor pour am bi ak tour bi amateur yi man di Ismaël Mané gis amaa xale bu réew bërëm ñëw di yàq CNG mënu koo xool promoteur bi jaay ay ay ay amateur wala supporter bërëm booba la ñu war a xool ñu xool mbër yi nga xam ñoo violent ñu mën leen a bañ a tëggal naa loolu mooy yoon mais jël ay mbër yoo xam yu violent lañ tëggal ay amateur yu violent tëggal ci combat loolu defe naa loolu defarul làmb mais lii boo ñu bañ la dugal ci euh, ñu bañ la dugal combat ñu seet neen lu def parce que lii budget la boo xam 32 milliards la ñu defal ko état Sénégal defal ko mbaaram la ñu war a def. parce que bi sécurité bi bi mu ñëwee bi booy liggéey maintenir lañ leen dal lan mais lii ku jiñ CNG da nga bëgg a jiñ CNG mais CNG deful kenn lenn parce que CNG du yëg di régler fee CNG li mu am mooy bi set jàmbal jàmbal ji waa ñu ko téen xam ngeen journaliste yi léegi ñu ngi leen rakaase benn mbër bu jéggi dina am amatul ñun loolu lañ mën a def mais taxaw fi seen biir nag ci wénaar ñu xaañ ñu wala ñu def loolu duñ ko def loolu rôle lu secret la non loolu photo amateur nga xam ay lañ ñoom la mais du leneen loolu photo supporter yi la mais du photo kenn biñu yëngutee combat bi yaakaaru ko xaalis tey xaalis taxawoon waaye xaalis yaay noonu ci diggi géew bi diggante Blindé Bébé Birahim Bébé Birahim am na loo xamante ni def na ko ci tànk yi Blindé dóor ñooy noonu ci digg géew bi abit baa ngi xool ki nga xamante ne ni mooy Bébé Birahim di xool niin na walla niinul Blindé pare na abit baa ngi ñooy waxante seen biir Bébé BM toj na nen yàq nga cuuj yàq omelette abi jox na avertissement ki nga xamante ni mooy Blindé deux avertissement pour kan Blindé am na deux avertissement Bébé BM am na benn avertissement abi baa ngi wax ak ñoom li lamb nangu ak li bañ waaye mbokk yi laata abi bi di jox na ki nga xamante ni mooy beneen na ñaari avertissement jox bébé bi ay benn avertissement abi baa ngi laaj ay juge am juge pare laaj na ki nga xamante ni mooy bébé bi ay pare ga laaj na ki nga xamante ni mooy beneen de pare nga beneen de mbokk yi moo ñu wan ginnaaw bébé bi ay moo dem moom la jàkkaar lool combat bi bar na ñoo ngay demee wet beneen de moo ñu moo ñu moo féete à gauche. Bébé Birahim la ñu jàkkaarloo mbokk yi boo xool ñoom ñaar xaw nañu tolloo ki nga xamante ni ni mooy Blindé moo takk mooso bu xonk bi ci bopp bi moo takk mooso bu weex bi ci bopp bi xale yi tolloo nañu taxawaay poids beeg lépp ñoo ko tolloo ñoom ñaar waaye mënut a ñàkk xeex ñaari njool lañ bala ñuy jàppante faaw ñu jëflante ba noppi ñoo ngi demante baam waaw xeex mënu cee ñàkk. waaye kii di Belende daa mel ni jàppante bee ko gënoon ñoo ngay liwaatoo ñoom ñaar Belende door na Belende door na Bébé Birahim ñoo ngay xeex ñoo ngay xeex Belende Belende Bébé Birahim ñoo ngay xeex du ci am dàquma ci kaawo de ñoo luy xeex Bébé Birahim kaaw na kaaw na kaaw na kaaw na kaaw na daan na ko waaw waaw Belende daan na Bébé Birahim Belende door na ko mu daanu nee naa la xeex mënu cee ñàkk Belende door na Bébé Birahim mu daanu Belende door na Bébé Birahim mu daanu nee na affaire bi man a affaire bi tey yow la Belende door na Bébé Birahim mu daanu dañoo xeex ñoom ñaar Belende door na Bébé Birahim mu daanu. ma jox si ponkal si ñaata kaw. mënu ma ko lim. nañ ma jox ñu dóorante jàpp bëri fu ma jëm na Malick ñaa ñoom bu bëri Malick na ñoo ñu bëri ñu Malick maa ko mun non lu ko war a sax la daa am ay décès yoo xamante dafa am sama koñ mooy sama tëggkat bi ku ma waroon tëgg asiko buloo dafa am dese seen coach quoi bàjjanam ma koy ñaanal jàmm ak salaam loolu tax sama tëggkat yi ñëwuñu man dafa maa pare gars yi jëkkati xaalis bu bëri may ma ay ñëw Moustapha Kane sama mag ma bokkoon ndey baay mu ngi ba France wante amul jàmm maanaam ak consulat bëre du ma ko bàyyi muy bëre sama kaw du ma ko bàyyi mu bëre sama kaw am tëb comprendre damaa pare pour bëre lu mu wax noonu loolu tax mu duma ko damaa bëggoon xeex moom cinq minutes barke yàlla champion